ñett ba juróom ñaari fan nga tàggalikoo ak néew kàttan si wàllub sëy nasaxul niin garab ak gàncax indi nañu leen traitement impuissance sexuelle bu doy waar loolu pommade ak poudre moo xam sa awra dafay dellu walla mu tuuti wala sax góor goo xam ni awram dafay gaaw a tëdd ba si góor bu bëgg yokk sa sàkkara pommade bi da koy traité si diirub ñetti fan ba juróom ñaari fan ak seen poudre bu doy waar bii da ngay gaaw a daanu wala sax da dul am yëg-yëg si wàllub sëy wala nga néew kàttan ba si góor guy gaaw a sonn buy sëy dañu koy traité Si si ba fan sa commande 618 445 04 79 Nous livré le ko foo mënti nekk Abonnez-vous sur Scène Production pour ne pas manquer des histoires et films très intéressants. Scène Production Islam Sakanam. oh ndeysaan na bi nga xamee ne El gis na lu yéeme loolu ci xaaju guddi bi mu déggee bunt bi ñu daal di koy fëgg mu tijji laata muy tijji laaj na ba mu xamal ko ne ko livreur la boo xam ne dafa ñëwoon di indil ki nga xam ne mooy Adja benn bagage mu xamal ko ne ko Adja tëdd na waaye bi mu insisté ne ko ajaa moo defoon commande bi mu xaw a retard moo tax mu guddee. El Hadj daal di am xel mu dal daal di koy tijjil bi mu ko tijjilee ba mu duggee rek daf ko daldi di bëmëx muy ñaari waxambaane yoo xam ne dañoo masque wu dugg si bi ñu duggee ñu daldi di bëmëx ki nga xam ne mooy El Hadj El daal di daanu ci photo bi waaye El Hadj bi mu gisee Youssou dugg si daldi di koy xool daldi muuñ daal di ree xamal ko ne ko moom deful dara jàpp ko dafa ñëw juste pour jël ci jaaru bi nga xam ne moom la takk. waaye hélas xamul importance su jaaru boobu mu jaaxle lool nag bi mu gisee Youssou mu tiit lool am mbetteel lool ndax jàppoo na ne Youssou dafa dof ndeke yuusu doful dara jotu ko bi nga xamee ne nag Youssou tekki na jaaru bi jox ko gaa yooyu ñu daal di génn daal di daw Youssou xamal hélas ne ko man ak yow jeex na jaaru bi rek moo fi bàyyi woon te jël naa ko kon maa ngi daw génn fi nga xam ne mooy kër gi. su Adja yeewoo nag ma ko tàggul dem naa te dootoo ma gisati ba faw El Hadj nag daal di tiit daldi di jaaxle bi nga xamee ne yuusu daw na génn El Hadj kese des fa daal di téye bopp bi nag daal di jommi daal di na waaw ah doy na waar de kon ki nga xam ne muy Youssou moom dara jotu ko dofut dara jotu ko ak coono yi daj ci moom yëpp waaye lii mënta nekk waaye. noonu El Hadj daal di tàpp bopp bi daal di dóor bopp bi daal di ne non non non lii mënta nekk waay kon Youssou dara jotu ko est-ce que noonu mu jëkk jékki rek daal di tiit daal di yeewu ndekete El Hadj doon gént bi muy yeewu nag boobu ay 5 heures moo jot El Hadj dafa jug rek daal di ñàq tooy xep daal di ne auzu billaahi mina seytaani rajiim fit wi nag di tëf tëf yi mel ni ku tiit. gént gi daal di koy marqué lool def jeexit ci moom jeexit gu tar hélas daal di jug dugg ci salle bi daal di xëppoo ndox waaj bi muy xëppoo ndox yépp xel mi moom ci gént gi ak yuusu bi nga xam ne dofut ak ñi nga xam ne ñoo dugg ci kër gi ba noonu la ki nga xam ne mooy élage daal di gaawantu daal di jàpp waaye laataa muy julli dafa daal di tijji buntu bâtiment bi génn ubbi buntu kër gi xool ndax xelam yëpp dafa nekk ci ne est lii gént la est-ce que lii nekkul dëgg ndax affaire bi daf koo marqué waaye bi mu ñëwee ba dugg nekk yuusu daal di ubbi bunt bi nànk gis yuusu tëdd mu tàllaam bi gis yuusu di nelaw hélas ñëw taxaw xool yuusu gis clim bi ni muy tàkkee ak ni mu seddee gis yuusu ni mu bankaloo ndeysaan mu daal di koy yërëm jël mbàjj gi daal di koy sàngar xool ko ba mu yàgg mu xam ne kii ba léegi moo ngi dof wérul ndax façon bi mu tëddee ak ni mu bankalooyee rek ma lay xamal ne ndeysaan njaw dese na xambin ba léegi daal yusu tanewul kon li mu gisoon gént rek la élève nag daal di ñëw toog ci salon bi laataa muy dugg ci néegam dafa toog ci salon bi ba fa la jullee fajar bi mu jullee daal di wirda daal di toog ci salon bi nak jaaxle dëgg mu nag di xalaat ne waaw jaaru bi ban importance la am daal di xool loxo bi gis jaaro bi fi ko takk di xalaat nag daal dina waaw jaaru bi fan laa ko jëlee dama ko for bizarrement dama ko for waaye ca kaw xeeru dënnu laa ko fekk dama ko fekk mu rafet lool ñu teg ko ci kaw xeeru dënnu muy biriyee waxtu njolloor ma sonn lool doon liggéey dox ba yem ci boobu àdduna jàpp na ma maa ngi doon a dem Mali xaw ma sax lu ma war a def ak lu ma warul def ci la ko jele dal di koy takk waaye bëccëg gi mako takke ngon gogol la ma mbir yi tambale dikkel ci la samay jaar bi est-ce sama ande noy ñom ko jox xel bi nak dal di xalam lolu mu ne kon jaar bi daf ma amal importance wala lan moo tax Yuusu bëggoon jël ci gënt gi ak Yuusu mbaadu jaar bi la bëggon jël sama neeg par dal di jommi xelam commencé ñaw mu yusuf ban intérêt lam ci jaar bi wala bok setané moo may wan wala lan mo xew lu tax yusuf bëgg jël jaar bi affaire nak jaaxal ko u bopam lol mu tok ci salon bi ba dal di nelaw bi mu naajee ba jank bi xey si defar ndekki li aja dal di yewu juk yusuf bobu aja dafa waroon genn am ay quelques kursi moron dox mais dafa fekk ki nga xam mom moy elage ci salle bi mu aja dal di nuyu elage niko ko waa El Hadj tey teel ngaa jug lii El Hadj ne ko xam ban heure la jug presque ay 5 heures japp 6 heures la ñew ci salon bi tok fi aja niko ah yow tel nga tel nga jug dal mo xew da nga nan julli rek tëddaat nest pas sa bir nek mu niko tay nak ci salon bi la jullee man dal dama lo nelaw ba mu yàgg ma gént gént gi dal di may tital motax ma ñew tok ci salon bi aja niko ah bon mu niko waaw waaw noonu El Hadj ne ko ah gént gi ma jàmm la Adja boog daal di wax El Hadj ko gént gi lu mu doon tiit naa de ndax yow moom dangay gis moom wax dëgg yàlla soo gisee dara rek am na lu muy tekki noonu El Hadj ne ko ah nañu bàyyi noonu rek du lépp lañu mën a wax. Adja ko bu ma gën a tiital loolu soo ko waxee damay gën a tiit di gént gi maa du man da nga ma cee gis mu ne ko gisuma la ci sax mais garaawul nañ bàyyi noonu rek ne ko kon lan moo tax mënoo ma ko yow El xam naa la man doo ma nëbbu dara soo ma waxul dara rek am na lu xew dimbale ma ngir yàlla nga wax ma ma xam El Hadj ko yaa ngi insister rek Adja te nga bàyyi noonu rek parce que damay ragal ne daal affaire u seytaane la rek parce que mbir yi mënta demee noonu daal noonu ki nga xam ne moom mooy Adja ko waaye danga may wax rek ma xam danga may wax rek ma xam soo ma waxee man dinaa comprendre lan moo xew parce que man ak yow on est des waruñoo am nëbbante ndax mooy tax ëllëg man itam lu ma mën a dugg rek ma ñëw wax la ko parce que man tamit nëbbu ma la dara ci sama bopp noonu El Hadj na ko wax nga dëgg wax nga dëgg. man daal gént gi li ma ci jaaxal mooy mbirum Yuusu moo ci jaaxal dara ba tëdd nelaw ba mu yàgg gént mel ni dañoo tijji dafa am ñuy fëgg ma jug di tijji ñaari waxambaane daal di ubbi ñoom sax dañu ne woon ay livreur lañ yow yaa leen livré woon ay bagages. noonu Adja daal di ree ne man mu ko waaw loolu lañ ma wax de comme dëgg nag gént gi comme dëgg ci man. yàlla xam na ne bi ma yeewoo ci kaw laal ci laa xamee ne dama doon gént mais su dul woon loolu gént gi mën naa jàpp ne dëgg la mooy gént yooyu nga xam ne day mel ni dëgg la ci yow nga xam ne yeewu rek mooy tax nga xam ne yaa ngi gént ndax ki nga xam ne moom mooy livreur bi bi ma waxee loolu ma am ci moom confiance daal di koy tijjil fekk nee naa ko Adja tëdd na mu ne ma carrément Adja moom moo commandé woon li nga xam ne moom mooy produit bi ba ñu war ko koo livreel dafa moo tax ba ma tijjil ko bi ma ko tijjilee moom ak keneen dañu ma daal daal di bëmax ma daanu ñu masqué comme si ay bande lañ ma gis yuusu daal di ñëw taxaw sama ginnaaw daal di wéer pilañ ajaane ku lay wax nii mu ne ko di ree nag mel ni comme si dafa complot ak ñoom dafa ànd ak ñoom mel ni daal yuusu dafa déggoo woon ak ñooñu nga xam ne ñooy band noonu la ma yuusu daal di poñee man ko yuusu da ngaa dof mu ree na ma dofuma jar jotuma damay simuler ne ma dof juste pour mën a nangu bi nga takk Adja ne ko ban jaaru mu ne ko jaaru bi daal xam naa affaire la garaawul sama jaaru la boo xam ne man maa ko takk. Adja daal di xool loxo El bi dal di gis jaaru bi si loxo bi ne ko xanaa jaaru bii la El Hadj daal di ne ko jaaru bii la mais Youssou daf koo tekki daal di koy jox ñaari waxambaane yooyu ñu daal di daw génn kër gi Youssou nag ne ma jeex na contrat am ak man lii la woon jaaru bi la bëggoon tekki te tekki na ko daal di génn daal di daw bi muy dem sax moo ngi ma tàggul ma Adja man ak yow dootuñu gisante ilaa yawmi diin maa ngi tiit nag affaire bi moom ma choqué comme si dëgg ci laa nekk waaye maa ngi gis Youssou moo ngi wér plein dara jotu ko waaye daal noonu daal laa daal di tiitee rek daal di yeewu noonu Adja nag daal di téye gémmiñ gi ne ko ah El li nga wax day na waar di El ne ko billaaye même man dey affaire yi daf maa jaaxal noonu Adja ne ko waa El Hadj yow sa gént gi nga fi njëkkoon a gént sa amoon ko la ko firil man Cheikh El Hadj moom ma la doon booleel ba léegi aw ma numéro léegi nag léegi nan lañu ñu war a def noonu nag ki nga xam ne moom mooy El Hadj daal dina ko Ibrahima jox na ma numéro am Ibrahima jox ma jox na ma numéro Cheikh El Hadj moom nga ma doon wax bi ma joxee numéro am expliqué ma ci laa xamee ne mooy ki nga doon wax Ibrahima am na numéro am parce que day suivre ay vidéo am mais Cheikh El Hadj boobu bi ma ko messager toog naa trois jours tontuwuma Adja ni ko ah mu ne ko waaw liiru ko sax ba may tontu woo naa ko aussi jotuma ko Adja ni ah loolu de doy na waar moom de gëm naa ne soo ko jotoon moom dina la mën a firil gént gi même bii nga wax nii dina ko mën a firi parce que bii moom jaaxal ma trop mais man mi bëgg naa xam lan lay tekki parce que Youssouf fi mu ni nii ay mbiram jaaxle nañ ci trop noonu ki xam ne mooy El Hadj daal ne ah yàlla baax na xelam nag daal di dem ci message boobu moom El mu ne xaaral ma duggaat WhatsApp xool mais bi mu duggee WhatsApp dafa gis ne message bi liir nañ ko. ba daal di koy defal benn autocollant moom Cheikh El Hadj Ndiaye li na message bi ba defal ko benn saa autocollant ba koy wan ne ko jërëjëf li dégg naa message bi dinaa la tontu noonu nag ma gis ne autocollant boobu moo ko envoyé démb ci guddi noonu nag ki nga xam ne mooy El Hadj daal di wax ajaane ko ah sama message bi da waa liir na ko nee na ma dina ma tontu te dem ci guddi la ma ko la ma la ma message te ma ko jéem woo ba xam ajaane ko heure bii mel nañ teel na de parce que ay 9 moo jot noonu ma Elhadj ne ko bàyyil ma jëm ko woo rek su ma ko woowee su fekkee xëyagul mën naa am balaa moo xëy di nekk ci bërëbu liggéeyukaayam dina ma mën a tontu noonu Adja ne ah baax na léegi woo ko man soo paree jox ma numéro parce que même man soxla naa ko. noonu Elhadj daal di composé numéro bi daal di koy woo mais dafa daal di woote rek mu décroché ko nga xam ne appel bi dafa sonné rek mu décroché ko mu daal di koy nuyu ne ko sëriñ bi na nga def mu ne ko maa ngi ci jàmm ne ko yow yaay Cheikh Elhadj Ndiaye mu ne ko man la. mu ko man ma ngi tudd El Hadj sa la ñu bokk ñu bokk nu ñu tuddé mu ne ko ah ndaysan jërëjëf sëñ ko man day dafa am ben gentu gu ma gentul mu jaaxal ma lol sama ben xarit ba ñuy wax Ibrahima nonu Cheikh El kisna ne ko ah ok gis na message bi kay gis na ko demb la koy doora lire nak demb la koy doora gis parce que message dañu bari won lol, dafa ni dañu nekk ko liggéey bi dafa xawon bari dal mu ne ko ah ok. léegi nag gént googu daal laay te woon rek maa ngi jéggul nag waxtu bi ma la woo ak dérangement bi soo ma ci mënee dimbale te yàlla tax ndax jaaxal na ma lool laaj naa ko yeneen firikat ñu firil ma ko mais ni ñu ma ko firilee doyul sama xel mi maanaam dalul sama xel daal parce que après xam naa ne ni ñu ma ko firilee jaarul yoon te yow nag wax nañ ma say mbir ci côté firi gént moo tax ma bëggoon nga jàppale ma ci mu ne ko man kay liir naa gént gi xam naa bu ma coupé ak yow rek dinaa la tontu incha allah. mais gént gi nag gént gu xóor la gu xaw a lënt ba tax na ni ma koy firee xam naa ne peut-être nga comprendre ko wala wala bokk nga bañ ko comprendre mais incha allah rabi danaa la ko firil soo coupé incha allah noonu ki nga xam ne mooy Elhadj na ko waa baax na amul benn jafe-jafe bi mu coupé ak moom nag Elhadj daal di wax alhamdulilah sama xel dal na. ajaane ne ko ah mu ne ko ah, jot naa ko moom laa doon waxal nii parce que nee na dina ma firil gént gi Adja ne ah, yàlla baax na. bu ko defee moom su la tontoo rek après ngeen waxtaan soo xamee ne firil na la gént gi ngir yàlla nga expliqué ma man tamit ma xam ndax affaire Yuusuf bi bëgg naa xam lan lay tekki noonu ki nga xam ne moom mooy El ne ko am benn jafe-jafe man ngay invité moom rek lay déglu nee na moo koy tontu maa ngi koy déglu incha allah jamono yooyu Ibrahima moom moo ngi woon ci fi nga xam ne mooy commissariat bi ndeysaan def na fa 24 heures boo xam ne fanaan na fa ginnaaw boo xamee ne moom Ibrahima moomu. mooy woon ci mbiram yooyu ndeysaan mu nekk ci biir jiri bi dafa dund lu métti ndax waxtu woo xamee ne El ñëw na El moom dana fexe ba lépp lu mu soxla mu jëndal ko ko mais fi nga xam ne ñi nga xam ne ñoom la El bàyyil xaalisam ñi nga xam ne ñoom la El bàyyil xaalis foofu Ibrahima day taxaw ci jiri bi wax ak ñoom ne dama bëgg ngeen jëndal ma nàngam mais ñoom dañ koy gëdd na ko yee eh, fii sa mbindaan newu fii fii koo yónni newu fi daa ngi dégg da ngay teey booy bi nga xam ne mooy jënd bagage yi dafa génn su ñëwee dina la jëndal nga xam ne mën naa toog lu yàgg xiif wala mu bëgg a naan bëgg jënd du am sax fu mu ko jëndee li ci gën a yéeme mooy bi mu fa ñëwee foofu noonu ci gir bi fekk na fa ñetti nit ñu toog kenn koo xam ne moom dafa toog jàpp njàmburam waxut ak kenn waaye day waxtu rek ndeysaan léeg-léeg mu ree léeg-léeg mu sëgg ba mu yàgg mu mer léeg-léeg muy waxtu ba mu yàgg ay rongañam di génn dafa tëdd ci ruq bi beru du wax ak kenn fekk na fa ñaar ñoo xam ne itam ñaar ñooñu ay nit njaay lañ ñoom dara jotu leen ñoom ndeysaan day waxtaan ak ñoom di partager ak ñoom foofu noonu gis na fa mbiru yéeme ndax gis na fa ñoo ñaar ñooñu ku ne ci ñoom problème boppam la am ku ne ci ñoom bu ko nettalee problème am rek day xam ne daal ndeysaan àdduna day gis ni ñoo ñuy dox di dem rek waaye ñëpp am problème day ñaan yalla dimbale ko mom mu génn ci jamm ba déllu ci ay itam waaye ñaar ñoo nga xamné ñoko ñoo itam daf lay li ñaanal yeen itam yalla na yalla jëlé ci fitna yi kenn ci ñoom laaj ko nako way yow lan lan lan moy problème bi nga xamné mo la andi fi odo bi nangul leen woon wax dara mais biñu défé 24 heures nga xamné légui mi nante nañ dañuy jékki-jékki bëcëg yi ñu wo kenn mu dem fi nga xamné mom moy cybercriminalité dik wala buñ demee ñu enquête ko laaj ko wax wax ak moom yi ñuy wax yëpp bind yi ñuy bind daal di koy indiwaat nga xam ne foofu ñoom def nañ fa trois jours laataa ñu leen di déférer waaye moom mi nga xam ne moom moom mooy mooy Ibrahima moom ma nga fa woon moom déféré guñ ko woon defaguñ ko woon dara dañ ko doon woo di ko laaj rek mu nekk fa ak ñoom sànn waaye gisul kenn gisul kenn koo xam ne taxawu na ko ku dul El képp lay gis mu ñëw. jëndal ko li nga xam ne mooy ay lekk ak ay naan ba ki nga xam ne moom mooy ñëw nekkal foofu dañ ko doon laaj ne ko waaw gaayen bii di fi ñëw nii xanaa sa frère la noonu Ibrahima ne leen kii sama xarit la ñoom ñu ne ko ah kii sa xarit la kii pourtant da ngeen ñuroo di mu ne ko si ñu bari loolu la yaakaar dañu yaakaar ne man ak moom ñoo bokk ndey ak baay parce que dañoo ñuroo mais sama xarit la de wallaay te nit ku baax la maa ngi door a xam dëgg-dëgg kii importance am maa ngi koy door a xam. ki day setané doxon na sama digënt ak mom ndax dafa am xalé bu jigen mu bëggoon bo xamné mom daf ko bëggoon ma top sama bakkan nak. te xamna naa mom bu xamone sax man bëgg na xalé bu jigen bobu attan na ndax baxam waye top na sama bakkan ba doon ko fexel ay fexe yo xamné ne daanaka rey ko la bëggoon waa ni ko dit way mu ne ko billahi te gis nga tay ji bima amé problème moma gëna taxaw réccu na lepp waji ne ko hi yow da nga doon nelaw yalla mo lay gis ni de nitu nit ku set wicci la nit ku bax la yalla xam ne dama fogon ne sa frère la yena bokk nday ak bay te kay mo la am na ñoo sax man nga bokk ñom nday ak bay mais li la ki di taxaw du la ko taxaw manam nit ku bax su la bolé ak mom mo xam mbokk la mo xam xarit la teeku ndax jamono bi bax mo yombut jabar ju bax kep sax boko amé teeku ndax nit ñi legi fo nañ nit ñi matérialiste nañ bëgg nañ alalu aduna aduna jital na leen jital na leen ala jital na leen seen bopp képp leen ñor nañ ñëpp daanaka ay texeet lañ seen bopp rek lañ ñor moo tax nag soo gisee nit ku baax ku dëggu ku am yërmande ci yow ku lay jàppale téye ko ak sa fukki loxo kii dee nit ku baax la Ibrahima ne leen kii kay dafa mel ni dama doon nelaw ñu daal di may yee ci moom waaye gis nga kii nii yàlla xam na ne dëgg-dëgg sama xarit la te dama ko lebaloon lu baax waaye xam naa ne boobu dafa ma ko fayagul woon a 100 saa rek. donte ne nag daan na mu defal ay teraanga ndax wax dëgg yàlla moo ma doon financé may liggéey moo ma tene woon situation te itam samay parents lu ne leen daan defal des fois kër gi daan tar sax moom moo ñu si daan génnee lu jiitu loolu moom papaam dafa génn àdduna mu nekk ak rakku ñoom Kaolack lañ dëkk waaye dañoo ñëw Dakar am fi am fi am fi am fi kër papaam rakku papaam nag dafa amoon xaalis même moom sax léegi macha allah Mali la nekkoon mais yàlla daf koo dimbale léegi nag jamono yooyu mu nekk ak rakku rakku papaam nag. ki nga xam ne mooy tàntaam boobu nga xam ne mooy jabaru papaam moo ko daan sàkku di ko indil ay problème lu ne mu def ko ko ki nga xam ne nag mooy El daf daan génn amul kenn ku mu waxal sànn du bàyyi du yaay amul kenn man rek la amoon ci mën la daan ñëw di wax ak man ak samay parent maa ko daan jàppale di ànd ak moom ci lépp ba ni mu demee Mali bi mu demee Mali nag xam naa ci la ko yàlla dimbale mu ñibbisi am alal lool wax dëgg yàlla bi mu ñibbisee indaale na ay projet am maa doon and ak mom ci assange yu bari ubbi compte bankam am di dox wax deug yalla fim tonni toll allah bi mi dem bàyyi na fi ay problème yu bari rakk papaam bobu dafa genn aduna ginaawam dal li len netti histoire yu bari dal ndax barab yu mel nonu day barab yo xamne ne dafay yee xel mi la aduna xamal la dal nit nit du dara nit du dara ndax fay misal bammel ndax bammel bo fa xasse dugg xamne nit mujj nga xamne nit ki di def lu nek di yëkkati boppam di teg boppam foo xam ne àggu fa di def lu ko neex di jiital bakkanam di yar jëmmam lu ne mu dugg ci day xam ne loolu du dara ñàkk doon dara googu loolu ñàkk doon dara dafay feeñ ay jëfam rek moo cay am solo noonu la mbir yooyu demee woon taxoon ne nag mu waxtaan ak ñoom kooka itam kam doon waxtaan tam daal di yéemu lool nag ne ko ah kii day ndeysaan ko am jaar-jaar la waaye lii li muy wane mooy nit koo xam ne yàlla daf laa nattu nga tumuranke amoo wajur amoo dara lu ëpp ci ñooñu bu góor góorgóorloo rek wakkeelu ci yàlla yàlla moo leen di dimbale ña leen doon sonal sax dañu mujj ñoom di daw seen ginnaaw ñoom ñu leen di dimbale loolu chaque jour nga gis ko day wane ne nit ki lépp lu mën a ñàkk te ñàkkul yàlla rek na xam ne ñàkkul dara ndax am yàlla yàllay buur ñàkk yàlla itam yàllay buur ndeysaan El nag jamono yooyu moo ngi doon xaar message ki nga xam ne mooy Cheikh El Hadj boobu bu ñu demee ba waxtu yu nga xam ne mooy ay vingt heures yooyu fekk julli nañ tibis ba noppi di waaj julli gee mu jëtaal téléphone am ci la gisee ne envoyé nañ ko message fekk jour boobu mu xëyee dafa génnoon doxe ay yitteem ba ñëw ngoon gi noonu mu toog moom ak aja mu daal di wax Adja ne ko xaaral ma dugg sama néeg xam naa dallu tuuti après dinaa génnaat. Adja ne ko baax na mu ne ko ana Youssou moom deful dara mu ne deful dara tey moom calme na dafa toog rek calme deful dara noonu El Hadj daal di dugg néegam bi mu ubbee téléphone bi ngir déglu discrètement li nga xam ne moom la ko Cheikh El Hadj Ndiaye di firil noonu El Hadj daal di gis Cheikh El Hadj Ndiaye envoyé ko vocal waaye avant muy lire vocal boobu daf ko daal di vocal ne ko maa ngi lay jaajëfal gis naa ne yónnee nga ma vocal maa ngi jégalu damaa génnoon maa ngi koy lire nii jërëjëf. ne ko dafa am beneen gént goo xam ne nag xam naa ne dinaa la sonal ndax dangaa jàpp waaye boobu moo taxoon sama doon la woo moom laa bëgg nga jàppale ma ci dama bëggoon bàyyi ba nga firil ma bii rek ma door la ko wax jàppale ma ci rek daal di ko expliqué gént googu mu géntoon ak yuusu ak bi mu nangoo jaar bi bi mu ko expliqué ba noppi gis ne jamono yooyu Cheikh Ndiaye mu ngi en ligne di lire message bi noonu la ki nga xam ne moom mooy El Hadj daal di déglu message bu njëkk bi. dégg ki nga xam ne mooy Cheikh El Hadj daal di koy nuyu ne ko maa ngi lay jaajëfal bu baax xam naa lii nag dama koy def nii mais du sama métier yitte yi nag ñoo xaw a bari moo tax ak liggéey bi te gént dafa nekk mbir moo xam ne mbir mu doy waar la te nit ñi dañoo bari bari koo xam ne ku bëggoon di firi seeni gént da ngay sonn te loolu am na ñoo xam ne spécial loolu mooy seen métier dañuy nekk di ci def ay émission mais man moom loolu ma ko métier juste dama koy def nii rek. wante yow sa gént gi li tax ma ne la xóot na mooy ki nga xam ne moom mooy say wayjuru jigéen dafa soxla nga ñaanal ko dolli ko ñaan waaye nag daf dénk ginnaawam yaakaar la ci lool ndax ki xam ne mooy sa wayjuru jigéen nga gis ko ci gént mu mu mu yow di mel ni kuy ree mooy wane dese naa kontaan ci ginnaawam waaye nag ñaari doom yooyu nga xam ne moom la téye dafay misaal ñaari ay doomam benn mooy say frère wala say sœur wala yow ak sa frère wala yow ak sa sœur loolu daal lay tekki dafa am jafe-jafe yu nekk seen diggante yoo xam ne dangeen ko war a regle jafe-jafe yooyu moo tax nga dégg liir yi ñoom ñuy jooy xam nga liir yi ñoom ay moomin lañ xamuñu dara moo tax ñoom li ngay gis ci gént gi nekkul contraire loolu mu am jooy yooyu ay jafe-jafe yu dox seen diggante la ci ñaari doomam maanaam am na ñaari doom yoo xam ne am nañ problème te yow la yaakaar nga régler ko benn muy yow ak sa sœur wala yow ak sa frère noonu ki nga xam ne moom mooy élage dal di muuñ daal di ree daal di waaw mais Général Ndiaye mi est-ce que mën naa fi di gént mais ki li mu wax moom xoolal di man dama am sœur wala ma am frère man sama yaay man kenn la am ci doom ji affaire na xaw bizarre ci moom mu ne kii su sëriñ bi njëkk ba terewu ko sax ba mu yàgg muy xalaat ba mu yàgg mu ne ah ok kon Adja ak ki nga xam ne mooy yuusu kon ñoom ñaar la kon Adja ak yuusu la may wan noonu mu gis Cheikh Alain Ndiaye daal di tontu deuxième message am bi noonu ki nga xam ne moom mooy yuusu daal di koy vocal ba mu yàgg mu daal di arrêté vocal bi ne xaar ma annulé vocal bi ma woo ko téléphone noonu mu daal di koy woo bi mu ko woowee Cheikh Alain Ndiaye daal di décroché mu ne ko sëriñ bi maa ngi lay jaar bu baax nag Ndiaye. maa ngi tuub de wax dëgg yàlla day xam naa ne indi moom maa ngi lay sonal dara jaay da ko déedéet amul solo tey liggéeyu ma sax tey jour la boo xam ne liggéeyu ma xam naa loolu moo tax sax nga woo ma ni jot ma may bu doon damay liggéey peut-être damay xaw a jàpp mën na maa yéex message yi ndax message yi dañuy bari mu ne ko waa gént gi ma jëkk firil de wax dëgg yàlla dafa xaw a ëpp man sama yaay man kenn rek la am ci doom kon su fekkente ne da nga wax ne sama frère la wala sama ñaari frère wala man ak sama frère dama xaw a jaaxal trop am naa nag ay frères yoo xam ne maa ngi dëkk ak ñoom te ñoom ñaar ñëpp dañoo am problème kenn kii dafa am jafe-jafe wér di xel moom sax laa la bëggoon waxaale après nga jàppale ma ci su dee da ngay def ay listixaar wala ngay def ay ñaan wala nga xam ku man ci wàllu jinne wala wàllu rab yu mel noonu rek nga boole ma ak moom ndax jaaxale nañ ci torop damaa ragal ne daal sama ñaari frères yooyu la ndax ñooñu suñ papa yi ñoo bokk waaye bokkuñu yaay noonu Cheikh El Hadj daal di tontu. ne ko suma la joxone ben texte bo xamne ne na dem ci ibn sirin manam dem google nga bind ibn sirin wala nga def be ay recherche ci ay ñi nga xamne ay ay euh, manam dañuy firi gént dañuy def ay tafsiru ahlam manam di firi ay gént ñoñu nonu so len so len laaje lu ci bari li ma la ko le lañ la koy le gis nga ñaari lire yoy doon joy say ay yor len say doomu yaay lañ su doon sa papa boobu nga wax noonu moom nga gis konoon mën naa ne say frère yooyu ngay wax mais sa yaay ci boppam moo jur ñaari liir yooyu lenn nag moo am mooy est-ce que amoo ay frère yoo xamut yoo xam ne nga leen xamut wala yu mel noonu loolu bu jaree nga def ci ay gëstu laajte ba xam xam nga kër yi dafa xaw a compliqué su fekkee amoo ay frère yoo amul yoo xam ne xamoo leen nag kon mën nga mën nga jàpp ne rek sa ñaari frère yooyu la mais li tax sa yaay wan la ko ak nii nga ma ko expliqué moom day tekki ne say frère la yoo xam ne yéen a bokk benn yaay su fekkente ne nag sa yaay yow kenn rek la jur ah kon jàppal na ñaar ñaar ñooñu la rek yuusu la ak ki nga xam ne moom mooy Adja noonu élargi ne ko waaw ñaar ñooñu nga wax nag noonu yuusu ak Adja ñooñu bokkuma ak ñoom yaay en même temps bokkuma ak ñoom baay mais sama papa ak seen papa ñoo bokk ndey ak baay lu tax ñoom seen yaay seen yaay dafa génn àdduna mi lu tax gisuma seen yaay ma gis sama yaay. Seyala Ndiaye ne ko jëmm nit nag mën naa transformé mën ngaa gis kenn ci gént mu soppaliku ñett ba ñeenti jëmm xëy na ñoom seen yaay bëggoon a gis nga a gis mais seen yaay xëy na amul pouvoir nga gis ko ñu wan la sa yaay yow xëy na sa yaay moo lay dénk ñaar ñooñu pour nga jàppale leen taxaw leen waaye li nga xam ne moo gën a wér moom ci li ma gis mooy ñaar ñooñu moom say doomu yaay lañ war a doon am sa yaay moo ne war a jur mais comme sa yaay amul beneen doom bu dul yow kese kon mën nañoo jàpp loolu rek nga firee ko noonu noonu nag ki nga xam ne mooy El Hadj di jaaxle ne ko waa ah, baax na jërëjëf jërëjëf Ndiaye kontaan naa lool nag sonal naa la xam naa maa ngi lire yeneen message yi bi mu coupé la daal teg téléphone bi daal di mu daal ne ah man daal Cheikh El Hadj Ndiaye mi wax dëgg yàlla ah, baax na mu daal di lire message yi beneen gént gi daal di koy firil ne ko ah sa beneen gént gii day ki nga xam ne mooy xale bu góor bii nga xam ne moom mooy yuusu nga gis mu tekki jaaru bi te fekk tekkiw ko. lolu ay pexem la dako don dako don bëgg def ta muju ko def jaaru bi nak li tax mu bëgg ko tekke xëy na lu lay la wala pouvoir la bo xamne dafa nek ci yow waye nak ñaari jëm yoy nga gis ñu joggé ci all ba ñew day wane ne mu yusu du ci coobareem la ko bëgg a mais dafa am ñu ko sant noonu nak elas dal di tit dal ni wow magnifique Cheikh El Hadj ki kay man na man na fi li wax ni mo am jaar bi pouvoir la ci man waaw kan lol kay mo am mais ki mana naa firi de machallah allah est ce que man ma djumon ah man sama bo baye beug beug tañu de man ki limi wax mun ma xam lan la kon yusu dañ ko santoon pour mu tek jaar ci man kan moko ko sant kon est ce que lol loolu mu dof ni hee ca yalla nonu elage dal di deug mu nak dal di jaxle melni ku jommi nak mu nekkoon lu doy waar lool fii la épisode 21 bi ñu jox leen dig épisode 22 bi ci lu yagatul dara inshallah allah jërë Abonnez-vous sur Scène Production pour ne pas manquer des histoires et films très intéressants. Scène Production Islam Sakanam.